mbokki internet Wilaya TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay topp si site bi di Wilaya TV Euh, ñi ngi jëm ci bis bu màgg bi ñuy wax vingt muharram ci bis bu am solo bu nga xam ne seen Serigne Touba Khadim Rasoul ci li ñu bisee ci dëkkam bu tedd bii di euh, Touba. ci taxawaayu jàmbaar ja Cheikh Mouhamadou Moustapha. bés bu am solo boobu mbokk yi waa Wilaya production dinañ ci am ak yéen ay taxawaay yu am am solo ay reportage ak yeneen ak yeneen. mbokk yi ñoo ngi fii si Ndayda Mbacke di euh, dëkk boo xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo sancaloon boppam. ci ay jamonoom jamono ji ñuy wax ak yéen nag Cheikh Moustapha mu sëñ see genn Fatma ak soxna Asuburi mooy kilifa dëkk bi bi nga xam ne mooy actuel président bu fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. mbokk yi ngir xamale leen ak dëkk boobu ñu tudd léegi muy Naïda Mbacké euh, dinañ dugg ak yéen si biir xamale leen euh, cosaanam maanaam li nga xam ne mooy euh, kañ la ko sëñ bi sos ak jeexital li nga xam ne moom la fi sëñ bi bàyyi boo leen ci bëggee am na leen leera da ngeen top topp suñu si bi di Wilaya TV. yor teraanga yi mag ña Bamba yoraale woon moo tax yilif nga yaa xam teraangay waa Kajoor waa Bawal ay yar sangu buur yi fi daa dem làmbaay yaa waa ak waa Bawal gannaaw ba ñu agsi si dëkk bi fukki waxtu ak benn mel na ni ñu ëpp ci dëkk bi ña ci ca toolu àllarba ya te fu ñu tuddee toolu àllarba rek xel yépp dina dem ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba tax na lool yi waa Naydou Mbacke gannaaw lu ñu benn yoon doon na yi. sant Njaay yaa Moustapha ab nu Moustapha yawmal xiyaamati rang leen nu fay médaay miskin ya daa jooy Seex Bamba ci wam sasin farloo nga seen rangooñ ya mat la xooy mag jàqatul ndaw tiitatul réew mépp bég ah mu ngi leen di nuyu bu baax di leen balax ñu yàlla dogal day ñu dëkke fi ay taalibi rek ndigal it la ñuy dig toolu àllarba yemale wuñ koog dara toolu àllarba yemale wuñ koog dara bu ñëwee ñëpp danañ teew seen yéene ak seen pas-pas ak seen jëf kon daal moom ñu ngi ci bu baax a baax a baax waaye toolu àllarba daal wax ne Baye Matar wax na ne fii bëgg sëñ mën Moussa sañcee lu mu fi liggéey yóbbu na ko njaareem jox ko Serigne Touba at mañ ko njëkkee yóbbu fukki fukk la bay fii ci ndiiraan fii nuy duggee dëkk bi ba ko yóbboo ak fukki kaamil ak karot mu it ko sëñ Touba ca njaareem sëñ Basiiru yóbbu ko ba ko yóbboo sëñ Basiiru jox sëñ bi mu ne ko danaa yebal ma ndubbe buñ ko bojjee ñu wutal ci gone luñ jëfandikoo mu ne ko ah lañ tànn day mën na leen a mën na leen a dundal sëñ neen sëñ mën Moussa toog ba yàgg sëñ Tuubaa toog ba yàgg mu ne dem ne ko ah Basiru yaa ngi Moustapha day tàggale naa leen ak njëg duut leen jëgg loolu nangoo naa ko ci sëñ Mataat Diop cum te bokk na ci ñi xam ci dëkk bi dëkk bii bañ koy sanc ñaari néeg yi fi newoon raab bu ci ne sëñ Mataar a dem sulli butéel yëpp nenu jën wii fi la nekkoon jën wii fi la newoon loolu moom xam naa ko ci biñ koy defar sëñ Matar di ko def léegi nag fii moom mag ñi fi newoon ñëpp liggéeyal sëñ Tuubaa rek lañ fi nekkee woon di wi ci ndigal di bàyyi tere ah sëñ Bàcc soxna loo ba mu fi nekk ñoom ñi ñëpp booba tool bi dañ koy def boo gisee tool bi tey di gaaw jamonoy sëñ Bàcce dëkk bi dañoo joxoon sëñ bakke boobu mooy mooy xalifa bi ñu jox ko tool àllarba ci àllarba jooje it bi fi sëñ Mbàkke ñu ne duñ ko tuxal ñu def ko gaaw xam nga boo déggee ñu tool àllarba noppi ñu def ko gaaw fonk ndigal lañ joxoon sëñ Mbàkke duñ ko duñ ca dégager dara ñu continuer def tool àllarba bi def tool gaaw waaye nag ñu am Pastef ñu nangoo dikk kii day beleel daa roote di indi booba dëkk bi amagul ndox booba mag ñee ngi fi ñëpp a ngi fi muy roote ji beleel di ñëw fii muy mbomb bi kon liñ ci mën a wax daal ci tool arab dia suñ mënu saa daal dëkk bi mu ko sancee liggéeyal sëñ Tuubaa rek taxoon mu def ko lu mu fi jëlee foofu la ko yóbbu wax nañ ne dak sëñ Basiru am na fukki weer ak ñaar yoo xam ne Cheikh Moustapha fanaanut àll fépp fu muy dem sëñ Basiru dafa yebal fukki weer ñaar yooyu Cheikh Moustapha fanaanut àll lépp lu muy def sëñ Basiru ko de boo gisee ñu bari naan magi bas wax nañ ne ci nayda gi ci la soso ndax sëñ Basiru dafa toppoon sëñ Modou Moussa topp koo xam ne boolewu koog dara bañ naan Basiru magi bas waaye fonk ko ndigalu sëñ Modou Moussa lu mu ko mos a joxe dana ko def. ne sa baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay gi ñaani kuy woote xalifatu yaa ko gën moo gën seeni sëriñ gën seeni baay. dellu si ci dëkk bi. gannaaw bañ jugee ci tool yi waaye bii yoon ñu taseeg sëriñ Moustapha Diop imam mu dellusi ak ñun ci taarixu dëkk bi ak Cheikh Mouhamadou Moustapha waaw dëkk bi day sëñ Mouhamadou Moustapha ko sanc li wax léegi ci 1922. bi mu ko sancee itam da ko sancoon ci liggéey ak jaamu yàlla samp fi ay daara boo waree li ginnaaw fee ñu weesu yëpp ay daara la woon yoo xam ne ay dongaa fi ne woon di bay li Baye Moussa am doon leeral li mu doon bay lépp ci yoonu sëñ bi la ko doon def yi ci jumaa ji lii ci waa kër gi dundee ndax ku ne xam na ne gis nga dim doon yan woon loolu taxoon mu sanc ko fii mu sanc moo ko sanc 1922 di fi indi ay bi di leen tarbiye xam naa ci mag ñi bari ñoo xam ne fii lañ ne yoo xam ne fii lañ tarbiye yow ba jóge fi jàkka ji fii ñu bi ñu dugg léegi sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma moo ko fi def jamono yeen ndoxam metti woon lool jafe nga xam daanaka nawet ba nawet lañ daan naan daanañ togg cere ñetti fan yoo xam ne duñ lekk doo am loo ko siime nga xam ne xaal ngay toj xoos ko ba am ndox doo ko toggi kon metti woon moo taxoon mosañ def basee bee bu nawet mosaan jot jigéen ju mosaan dem da ngay duy sëg paan ñëw sotti ci su demee ba fees ñu tëj ko su demee ba ndox manqué boo xëyee nga indi sëg paan ñu déy la ci ngay togg gañ togg ci reer sang ci sang ci say xale kon mu defe naa metti woon na waaw muy benn mm, bi ci toppit mooy waaw néeg bi bi ci topp mooy néeg bi néeg bee ñu jaarale muy kaskaare bi sëñ Modou Moustapha eh, moo ko sañcoon mooy kon néegam bi mu sañcee kër gi. bi dend mooy néeg bi nekk bassin bi ci kaskaare bi moom moo moo moo doon néegam. bi nga xamee ne jóge na fi demoon na fii yëpp dara nekk fi woon yàlla dogal góor gi ñu daan wax Mamadou benn néegam rek moo fi nekkoon. waaw waaye booba néeg beeg yëpp daanaka dañ koo kii woon ci biir kër gi waaye amul fenn fu ñu manoon ne fii la ne eh, biñ demee ba sëñ bi ñu teg ko ci ay loxo muy sëñ Mbàkke Soxna Lo jox ko mu sëñ Moustapha Suburi yal na yàlla yàggal ko te wéral ko ci lañuy sëñ sëñ Muxtaar Jóob moo ñëw wane barab ba ba biñ ko gasee yañ fa defoon yëpp mandarga moom avant ñu koy kii leneen da ngeen fa génn nangam nangam bañ ko génneen ma loolu lañ fa nekk bañ koy xoolee moom moo fa nekkoon kon loolu ci la bokk muy ñaar beneen bi itam mooy fee ma la woon ne la Sëñ Mbàkke Muhammad foofu la gënee àdduna moo tax ñu naan moo ñu naan Nayda la gënee àdduna. Nayda waaw mhm. nañoo déggee ne sëñ bi Nayda la waaw ba tey ci Sëñ Mbàkke eh, bi mu gënee àdduna. Mhm. yàlla baal ma bis bi ñuy tudd. Mhm. Eh, ndox manqué na ba eh, bañ ne suba la. góor gi ma lay wax ne moom ko nekk nee dañoo rooti joon ñoom ci seeni bopp ndox di indi bi ñëwee ba tollu guy gi fii fi la taw bi soo ñoom ñu dëpp seen i paan bi ñu dëppee seen i paan nee na man sama paan dama ne leen man da ñëw naa fii dama ko yóbbu mhm. bi mu ñëwee la fekk maam soxna loo ci ëtt bi mu wéex di tànqal si Cheikh Moustapha ndox suñu seegeen maam ndox mu jëfandikoo na ma wàcc yenn mu far dëpp loola jël paan googe def ci njaq kon ñàkkoon na ndox wa yi di siyaare ka joxe hidaay jàkk jooju itam Cheikh Moustapha moo fa julli woon sëñ Modou Moustapha ak sëñ Cheikh Gaïndé Fatma ñoom ñaari ñëpp ak salaan ma fa nekkoon ñu dindi ko dafa jàkk bari waan na ko fi ñëw di sàkku ay ñaan fa lañ lay yóbbu te loo fa ñaan suñu borom musal ci waxoon naa la ko mm-hmm. julli yor yor moom yor yor ndax ma ngi dañ koo fonkoon dañ ko daan nañ ko fi julli waaye bu dee waaw julli julli fi ñu daan jullee moom julli juróom ak it ci kanam boo demee ak séen nga fa ne woon foofu la Cheikh Moustapha daan jullee moo fa daan jiitu moo tax ñu def fa jàkk ji ju jëkk ji fii la ne woon fii nii la ne man fi laa daan jiitee bañ defar ji ñu doog ko jox jox ma ndigal ma waaye ji laa daan ay seng lañ ko waralee bi nga xamee ne sëñ bi jox nañ ko dëkk bi moom moo fi njëkk a defar jumaa jàkk ji ji nekkoon fii ay seng la woon sëñ Cheikh sëñ Moustapha mii sëñ Moustapha Suburi moo fi defar jàkka ji bi ñu ko defaree jàkka lañ njëkkoon doon moom yàgg ñu tëj ko jumaa jàkka lañ ko njëkkoon a def julli nañ ma ma sëñ Amdi Jóob moo njëkk a julli takkusaan ñu jox ma ndigal ma ciy jiit yàlla na yàlla yokk leeram ci ginnaaw bi nag ci la sëñ bi jàkka bu njëkk benn sooroor la woon biñ demee ba euh, daaw ci la ko yeesalaat def ko nii mu nekk juma Euh, kon moom itam taxaw na ci taxawaay bu rafet boo xam ne xëy na kenn ku nekk moo taxoon suñu Mbàkke dénk ko ko waaw ba tey boo xoolee ci limatool ma doon wax ci wàllu mar woowu metti gu metti woon man kelleel jëm a dëkk ci la waa nay di gi daan roote daanaa tëdd ba une heure matin wala deux heures nga dégg seen sareet yi ñu ñëw di root si kelleel moom bi mu ñëwee bi ñu ko joxee dëkk bi moom moo fi njëkk indi ndox ak rang bi daanaka fii lu fi nekk daal moom ci eh, ginnaaw bi moom moo ko dundalaate nii ñaan yàlla mu gën a dolli lépp rek ndax ak njàmbaaram ak bëggam dëkk bi lu mu am moom xam naa ne moom fekk ko gënal xëy na jotam mayu ko ko waaye saa bu bu fi nekkee moom da ngay daal di gis dëkk bi di hmm. nga bi mu fi ñëw boobu daara moom demoon na ba kiiwu fi daara man bi ma ñëwee ci lañ ma sant ma sosaat daara di jàngal waa dëkk bi yëpp waaye te lay jamono daara ji boobu amagu fi dem nañ ba jàng moom demewul noonu màggal gi moo ko dundalaate noonu ndax mm, waa dëkk bi ñoo ko njëkkoon di màggal waaye dañ daan teg seen ay juróom jàmbaar lañ magal buñ jàngee ba pare kilifa ñëw ñaanal leen ñu dem ci lañ ko topp di ko topp ba ci la ko sëñ bi sof mu nekk màggal bu mag boo xam ne tey ñëpp ko ràññi loolu ci ay taxawaay la bokk boobu mosaan ñëw itam am na benn damay bañ a tudd turam daa xawoon a dese dafa ñëw na salaamaaleykum salaam mu ñu ne ko nay de ngi nii mu ne déedéet nay de amuti tabax waaw yàlla ko yàlla yokk leeram defe naa wàcc na bu liggéey mbay jang lañ ko daan wax moo ñëw salaamaaleykum maa ngi salaam mu ne leen nay de laay ne ko fii nay mu ne nay de amuti tabax kon avancement mi ngi fi am bu baax a baax a baax lu mel ne ay projet ay yi ñuy bay ak yëpp ay tool ak yëpp def nañ ko fi léegi bu njëkk boobu amu fi daanaka bay lañ daan def bu nooree mag ñi boo ñëwee ci pénc bi nga leen fekk bu njëkk bu ku fi masaan malaat benn otaa fi noonu boo xam ne xaaju guddi du taxaw waaye eh, boo gisee eh, case case de santé baa ngi ci kanam boo génnee da ko fekk foofu moom def nañ ko fi boo xoolee moo den ak daara ji nga xam ne moom lañ préparé pour xale yi itam waaw kon baax a baax ci eh, li ci toog li ñu ciy dolli itam mooy sant Cheikh Moustapha mi nga xam ne moom moo fi moom lañ ko dénk ci mu nekk ci loxoom indi ci ak njàmbaar gu rëy li ma wax léegi gis nga lii am mbaar la moo xam ne ci dañ koy prévoir pour màggal gi maanaam ci la bëgg cérémonie bu ñu doon def ak yëpp tey fee lañ koy def waaw mooy mbaar mi moom yooyu yëpp moo ko fi xayma ngir ak itam waa dëkk bi jàmbaar lañ ndax lépp ñoo ko ànd ndax bu fekkonte ne moom kese leen mën na waaye nag gannaaw ñu ngi ko àndandoo ak ñoom ak kon loolu dañ koy dañ ciy sant bu baax a baax di ñaan yàlla rek moom mi nga xam ne mooy borom dimbal te kum dimbal nga am dimbal yàlla na ko doom dolli dimbal ba mu yeggale ay yéene yëpp yu mu bëgg waaw ndax wax dëgg yàlla jàmbaar la lool waaw yéen itam ñu ngi leen di sant euh, di gërëm bu baax a baax a baax. jërëjëf ñu ngi baax a a baax. waaw sama kàddu mujj mooy sant rek di leen sant bu baax ci taxawaay bi ak euh, avancement bi déplacement bi ngeen def ba ñëw fii ngir gëstu rek. kon loolu lu am solo la ndax taarix moom ku ko xam xam ne téere ñuy jàng yëpp mag ñi ñoo ko dajale woon denc ko bañ man koon ndax Nayda nekk na dëkk boo xam ne léeg-léeg da ngay tudd Nayda ñu ne la fuy Nayda te dëkk la boo xam ne dañ ko war a xam. dëkku taarix la dëkk bu yàggee boo xam ne Cheikh Moustapha bi nga ko sancee ak léegi war naa bokkoon ci dëkk yu mag yi xëy na ci kanam tuuti yàlla dina def dina ñëw. Cheikh Moustapha moo fi defoon bi mu ko defee ba yàlla dogal nekkatut sëñ Cheikh defar benn bi bee Cheikh Moustapha ne woon bu xëyee soxla mag ñi foofu lay gisee ñoom waaye nag bu soxlaa boppam ci benn néeg bi lay nekk mooy ñaari néeg lii Cheikh Moustapha liggéeyoon. ci la daa ci la defoon fu muy dajeeg mag ñi bii mu liggéey ci la daa jote bopp nga xam ne fonkum fokkoon Cheikh Moustapha ba lu mu yoroon rek da koo gën a dolli moo tax ndax jamono yi nekkee fii wax am nañu ne Cheikh Moustapha ak sëñ Cheikh bokkoon nañ fi nekk Baye Matar ne mës am ne fu ñu ngi wax ngi gis daa de ngi gis Baye Matar moo wax ne sëñ Cheikh mës a fokk ak sëñ Cheikh fanaan fii loolu ngi gis la daa fanaani ca daara ji ne diirum li fi Cheikh Moustapha nekk ne sëñ Cheikh Moustapha fanaan ci kër gi ngi gis lay fanaani ci daara ji moom it koo toxale ci moom toxale ci moom lu wér mu wax na ko nee na sëñ Cheikh Moustapha fanaan fii bi sëñ Moustapha nekkee ngi la doon fanaan Baye Matar Baye Matar day mag ñi nga xam ne dañoo dëppoo woon ak Cheikh Moustapha seen lépp dañ koo defoon ci Cheikh Moustapha muy mag moom léppam sëñ Moustapha la nekkoon Baye Matar yàgg na bayti yàgg ak sëñ Cheikh yàgg ak ñëpp ci koo xam ne daal maanaam lam lay wax day lu wér loolu daanaka moo téere ndax du wax ci bakkan du wax lu neex kenn kooku moo tax li lim nu wax boobu ba ñuy liggéey nuy ànd ak moom looloo tax mu def garab gi taw suum dal nay dox nu toog fi noog am Amdi ma ne sëñ Amdi mu ne ma déedéet du ma dugg ci mbaar mi keroog ba nga xamee ne liggéey nañ néeg yi ba àggal ma dikk ne ko néeg yi noppi na. mu ne ma noppi na ma ne ko waaw fekk na ne woon am di fee néeg yi àgg bul ñëw Touba ba ma dikkee ne ko àgg na mu ne ma àgg na ma ne ko waaw mu ne lu fa def ma ne ko def nan fa ñaari néeg ba mu àgg de ne ak lan ma ne ko akub lal mu ne ak lan ma ko bàggal mu ne ma yéen de jaayit mën a guleen a sanc ku sancat néeg defoo fa kaamil defoo fa deru jullikaay defoo fa sijaada kon borom néew bu dikkee day wëri daal di woo ku ñuy taalaga jeg mu ñëw mu laaj ko yooyee yëpp daal ne waaw mbaar am na fa ma ne ko déedéet mu daal ne bàyyi fal sekk andil may andil may seng muy mbaar yi aari mbaar yi ne sëñ Mourou Moussa daa def mbaar di ci waare loolu tax ñu lay wax ci sëñ Matar loo xam ne day loo xam ne day war a leer maam Fati nay de bàyyi ma taat yow doone li mu ko gënale ci doomi sëñ Cheikh yi sëñ Mourou sëñ Cheikh yi nee na moom dafa am fay de tudde boppam maam Fati nay de néegam baa nga ne mu defar ko fi ndax bëggum bëgg nay fonk nay lool bëgg nay de lool kon bu ñuy wax ci nay de danañ ko wax ndax moom mag ki waa kër sëñ Cheikh ci jigéen ñi waaye dafa bëgg dëkk bi fonk dëkk bi noo ngi koy siyaare di ñaanal ñëpp jàmm ah hôpital bii jafe woon nañu lool ndox mi jafe woon nañu lool lépp yàlla dimbali nañu ba lépp ñëw ci nekku sëriñ bi kon nag noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal li sëñ Moussa wax kon ñi fi nekk ñëpp noo ngi leen di ñaanal jàmm siyaar siyaare soxna maam Binta mi ne ci biir kër gi nga xam ne wax dëgg yàlla bindikee danoo dalal bu baax toppatoo nu ci fonk dëkk bi ba lépp lu man def na ko ci nay de dalal waa dëkk bi ñëpp ku ne sawar a ñëw nay de ndax di ko fekk noo ko ci sant di ko gërëm di siyaari soxna Xadi di siyaari ñoom ñëpp rek na ngi leen di siyaari jabootu si bi daal ñëpp ñu ngi leen di siyaari maam Faty Kébé ñëpp noo ngi leen di siyaari di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp noo ngi di siyaari ci leen balwaq jërë ngeen jëf mu bi moo